ñu jëm nag ci journée le 8 janvier muy journée Ndiaye production mu boole si ay espoir yoo xam ne espoir yaakaar lamb lañ ndax soo nee Bulldozer caatu Yoff arobase aada booy bawal boo jóob de far bu jar rek tëj na journée bi waaye nga ne Pape kar Karbala ay espoir la ci boole yoo xam ne journée journée le janvier 8 janvier boobu oh njarndeem la de te ñu ñëw seet ci ci kenn muy kan muy boo jóob de boo jóob nuyu naa Idi maa lay fay di sant yàlla di julli Seydina Muhammad di sant sama ñaari waajur xam di sant waa yëmbal yéen yi di leen sant bu baax a baax waa wasaare xam nga tamit ndax lépp yéen la amaana bu woon yéen kon ñun mbëri kenn duñu xam xam nga ba kenn di commentaire si ñun wala ba kenn di wax si ñun maa ngi leen nuyu bu baax a baax xam nga di ñaanal sama frère Fallou fu mu tëdd gënal ko fu mu jógee yàlla suñu borom yërëm ko xaaral ko àjjana sa àjjana yi gën a kawe di ñaanal ñi nga xamante ni caa caa moo leen féete ginnaaw dafa am ay am samay nit yoo xam ne ñoo doon ànd fii guddeeg bëccëg suba ngoon tey jii caa caa bi daf leen féere ginnaaw xam nga maa leen di ñaanal suñu borom jëlee leen fa indiwaat leen suñu kanam bu baax a baax baax di sant sama yaay bu baax a baax idi boo yóbbu nga jëm si combat sa digganteeg far bu jar far bu jar dugg na fi am booy duggaat fi am booy duggaat fi jël booy waaw sama digganteeg far bu jar nag dafa nekk làmb joo xamante ni làmb ju neex la xëy na sax du mag moom ñoo waroon bëree mais yàlla suñu borom loolu la dogal mag Fils de Lirou doon Fils de Lirou yàlla suñu borom daf mu def soog làmb jooju annulé wu léegi ñu jël ma boole ma ak Far bu Jar Far bu Jar nag daanaan la champion la xam nga di ko ñaanal wér ak wérle ak tan ba mu ñëw ca bisu lewit bu neexee yàlla suñu borom ma jàpp ko duma ko daan ko bu neexee yàlla suñu borom. est-ce xam na Far bu Jar. Boy Diop xamul Far bu Jar de xam naa ko xamul làmb xamul làmb rek laa ko xam ndaanaanu làmb la. ndax ku lu fadlin kay. ndax ku bëre douze combats. naanaan nga si làmb bu rek ay champion yu mag. ay at xeex mën a bëre. loolu dëgg la mais bu ñëwee njoolu yëmbal bi la fay fekk. Eh? njoolu yëmbal bi la fay fekk. nga fekk fi ndaam bi. fu ma ko jàpp day tëdd. te faroo jar yóbbante woon naa ko démb ma ko yóbbante waa tey. nee naa ko làmb ji amu ci sens. lu tax amu jël la. làmb ji lu tax amu ci sens ko jëlee la. démb nee naa ko dàqal dàqal mu naan morul dàqal moo ngi koy jeexal kookoo mar. loolu dama dégg nga wax loolu ba pare répété waat ko lu waral loolu tax nga maa bëgg a leer ñu loolu. olof la boo ko déggee muy maanaam man maa ko gën a soxla maa ko gën a soxla làmb ji fukki junni yoon olof la daaxal mu naan marul daaxal ma ngi koy jeexal a mar olof laa ko wax marul daaxal ma ngi koy jeexal a léegi loolu boo ko déggee ma tekki loxo mi maanaam man maa ko gën a soxla làmb ji téeméeri junni yoon maa ko gën a nekk xale maa ko gën a nekk si yoon xam nga na ñëw def li mu war a def yëpp ma jàpp ko daan ko jëlee bu rëy ànd ak say mbokk waa Yëmbal benn barak Kër Masal Malika xam nga buun jaxaay onze be xam nga ñàgg ñàkkarob ñi nga xam teewaan pël ñi nga xam nañuy bëggee Jóob Dóor dafa bëri ñëpp ànd ak say mbokk ñëw mobiliser leen yóbbu leen ci stade bi daan far bu jot jëli bu rëy su neexee yàlla suñu borom démb ma dégg nga ne ko da fa da ngaa dugg yëmbal jël jël boo yëmbal daanu duggaat fa jël booy piir daanu nga tur mu tur ne jël boo Jóob waaw gis nga de boo yim jël lañ ko daan boo yëmbal daan booy piir da ah mu tourné mu tourné jël boo Diop day daanooti rek te bu soobee yàlla yonent bi day daanooti. nee na la mu foofu. si yow la koy sëpp for li ma ko dem dégg na ko bu baax a baax baax xam naa xam naa dem moom tëddee ne la woon. Eh? for ne naa ko boo xeexee ma duma la soo bëree ma daan la maa la ëpp doole fukki ci ne woon. fan far bu jar doole waaw ah, for dama ko tasee for dem dama koo taru. si signature mu am lu ma duma ko xoolee ma téye ko benn loxo mu xëcc ko ñaar loxo mënu ko dindi eh? kon doole yamul. kon doole yamul. su ma déggee maa ko ëpp doole. for bu jot laa xam maa ko bu doole ma ko tese démb ma ko tese xam ne maa ko bu kattan. si centre bi at foofu bokkul de. waaw bokk na bokk na ba dee doole doole dong la. doole ji yoroon ci signature ba làmb ja bu neexee yàlla moom laa yor te bu ma neexoo taral dina xam ne la ma ko jàppoon ci signature ba mënul yëngu noonu laa koy jàppee ci làmb ji ba du yëngu. bu xeexee. ma duma ko. ma daan ko. fan nga wekk loolu. fi ma ko wekk mooy maanaam damaa preuve yi ma def si làmb bañ boole ma ak for bu jar ku ne xam ne ne logique na ku ne xam ne ne jaadu na xam nga for bu jar dama ko bu doole dàq koo bëre gën koo nekk xale waaye yëmbal lañ maa yónni yaa xam ne ma kon taxawaalu waru ma xam nga mais nag nekk na adversaire boo xam ne dama koo jox cër dama koo respecté waaw nekk na koo xam ne dama koo jox cër dama koo respecté bu baax a baax a baax a baax xam nga parce la bu dul dara sama grand frère la xam nga moo mooy chance nag waaw dama ko si di ko gërëm mais bu làmb ja amul mooy sens amul grand frère amul dara. yéen booy da ngeen grand frère la bu arbitre sifflé ngeen teggi tëru grand frère teg fële yéen booy da ngeen teggi ndawal de. noonu laay def bu neexee yàlla suñu borom grand frère bi nag la yem de mais su arbitre ne pimp wàccee loxoom amul grand frère amul mag amul mooy sens amul dara dama lay attaqué koñe la gañe la su neexee yàlla suñu borom. wàllu mobilisation bi foo si toll. waaw wàllu mobilisation bi fi ma ci toll mooy maanaam di woo waa Yëmbël benn Baraak Kër Massar Malika. B11 xam nga maa ngi woo waa jaxaay si làmb ju baax a baax ñëw jàpp si di woo surtout sama waa dëkk waa Lougaloo sama mbokk ñaamur ñaamur yi maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax baax ci làmb ji lu ko dolee guy mbati sëy tanin paxa njéey waa looyeen tamit maa ngi leen di si làmb ji ñooñu ma ama seen fay billaahi xam nga sàkkal ngiij faal sama dëkk dëkk sëñ Abbas Sall di woo njaboot sëñ di woo di woo sëriñ Abbas Sall njabootam gi yëpp ñu ñëw ñaanal ma baax a baax ji fasaalal ma am ndam si kaw far bu jar bu neexee yàlla suñu borom xam nga di woo waa Fass bëri ko tamit xam nga sama samay mbokk maam fa lañ nekk Kaolack bi noonu Gosaas mbir ki laan gi ñëpp maa leen woo si làmb ji bu baax a baax a baax a baax a baax di woo sama xarit sama sëriñ Abdoulaye Diop xaas si làmb ji mu jàpp ci bu baax a baax a baax ak suñu monsieur le maire Babacar Ndaw mobilisation bi ay xale lañ làmb la ñuy dund làmb lañ bëgg xam nga te yow yaa ñu jiite yaay suñu maire dañoo bëgg tamit bu ñu amee combat nga si taxaw bu baax baax a baax comme ni ngay ah, waaw comme ni ngay taxawee ci nawetaan yi équipe nawetaan yi ñun baa waxar ndaw soxla nañ sa taxawaay bu baax a baax parce que ñun ay doomu yëmbal lañ yëmbal lañu représenté fu ñu ñaan doomu yëmbal bi te loolu ñun suñu fierté la ñun ñëpp yow tamit loolu sa fierté la xam nga dañuy ñaan tamit nga nga siy jàpp bu baax di jëndal bolok ah di ñu ay kaar loolu soxla nañ ko bu baax buur séeri caat maa ngi koy waat ci làmb ji bu baax a baax a baax buur yaay faal tig-tig bi nag tamit maa ngi koy woo Fat Faye Sophie nu ma la woon démb ak bërki dem noonu laa lay woowaat tey xam nga sama mafia bi maa ngi leen woo ci laa ji bu baax mafia José mafia 35 daara ji maa ngi leen woo taaliba yëpp bàyyiwuma kenn cet ba cet mafia cinkom gi Kanté maa ngi lay woo bu baax a baax ak Momo Samb sama doom yaay la golden boy maa ngi leen woo bu baax baax baax Kanté gis naa affaire nag nu ngi ci jàppee mais gën a la yokk sa loxo mafia Paax mafia kang bi kang feraay bi ñëpp maa ngi leen woo si làmb ji mafia fur bi ñoom seex ndigal xam nga gi ñëpp benn baraak Kër Masaar Malika woo naa ñëpp ci làmb ji pour ñu jàpp si bel fobeere séeri fat baa ji fa ne daa tawat ñu ngi koy ñaanal tan bu baax a baax baax baax maa lay woo si làmb ji xam nga sama mag sama xarit baara desan cinq suñu coach Mor Fall maa ngi lay waat si làmb ji nga gën a jàpp yaa jàpp mais gën a la jàpp sama turandoo boo comme dab nu ma la doon woowee barki démb ak démb noonu laa lay woowee tey xaadim séance suñu Baye Fall bi Sa Thiès di ko ñaanal ndam di ko ñaanal ndam doo reeku lépp saa maa ngi ko ñaanal ndam si digganteem ak onge onge bu yoof onge bu yoof di la xamal leen lu ndaw doo sa bopp ngay xamal onge man sa mbos a boor la xamal leen lu ndaw muy saa bu ndaw fu mu la jàpp di nga neexee yàlla parce que saa mooy man maay man maay moom xam nga daanaka su ma su ma ñaanalee sama bopp daanaka ñaanal naa ko di ko ñaanal ndam bi su la 15 boobu baax a baax a baax a baax a baax xam nga sama grand zungule moo ami moo frère xam nga séeri fili ak xayda xam nga may la doole may la xaalis koo kenn moom chaque jour ñooy ànd entraînement muy daj loolu métti parce que alxuraan léegi rek mu ci mujj xam nga làmb ji làmbam la grand moomu naar borom Medina maa ngi koy woo si làmb ji baax a baax baax mu jàpp si xam nga comme ni mu si daan jàppee Pape Fall menuiserie maa ngi koy woo si làmb ji asu dem borom kasoor sama yaay sama xarit maa ngi lay woo si làmb ji làmb ji ay tiset laa bëgg nga mooy ma ko assu borom kasoor làmb ji bëgg naa nga may ma ay tiset yu bëri xam nga ñu waaj ko bu baax a baax a baax dem yàlla suñu borom may ñu ndam waaw comme ni nga ko daan defee démb ak bëri démb rek yow moom mention spéciale sama yaa sama xarit nga mbës daale ba baax léegi nii rek ñu ngi déggante mbës maa nga naa ko jumaa mubaarak si àjjuma ji ah baxyaar bi mosul moo ma ko jox mbës mbës waaw Baay Faal mag bi maa ngi koy woo si làmb ji moom tamit bu baax a baax a baax a baax Jibi Bamba xam nga borom la 2 janvier tamit ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak wérle xam nga ay omor Saalu sama waa ji tamit maa ngi koy woo si làmb ji comme dab ni mu si daan jàppee si sa ngooni taa da nga may nax ba ba tey joxagoo ma sama xaalis xam nga léegi nag làmb ji li si des bëreetul xaalis bi na ñëw wala mu ñëw ñaar yooyu lenn moo si am. mu ñëw xaalis bi na ñëw wala mu ñëw si sa ngooni taa li ma lay wax ni xam nga ko baa baax a bu ñëwul man maa ngi ñëw sol sama dàll ñëw jël sama xaalis ah di woo sama moodu moodu yi nag Pino borom Italie gis naa taxawaay bi gis naa ni nga ci jàppee aw ma sa boroom Pino borom Italie ma nag di nga ñëw maa ngi lay déglu ba ba tey kàddu gi kàddu gi tamit maa ngi lay déglu xam nga Adama Diop borom Italie borom Palmarin borom Jifir borom Baasur Baasaar borom il bi il foofu yëpp yaay borom maa ngi lay déglu nag ba ba tey dégg naa dégg naa la nga wax mais maa ngi lay déglu bëgg naa nga jàpp ci kaari yi bëgg naa nga jàpp ci tiset yi bu baax di sant waa ASC sama ASC bi sama mafia bi foofu ay ñoom baaba xam nga ay ñoom baaba ñoom Ida Gueye mafia bu Moussa Kalamu ajaa Fall xam nga ñoom dañuy sonn si man dañuy jàpp samay combat xam nga chauffeur super yi apparenté yi di jël nuyoo bi di ko jël di jël nuyoo bi di ko teg si loxo aatu man mu tasaare ko chauffeur sëpp ak apparenté sëpp oto bu ñu yëg duñ fay paas xam te oto solul ndox gasoil lay sol kon ñun xam ne amuñu seen fay ñu ngi leen di siyaar baax baax di nuyu sama tons Moussa Daawo borom marsaasu maa koy nuyuwaal au passage bu baax a baax a baax xam nga di sàq si moom ñaan amet sama nijaay barke alxuraan day sonn si man chaque jour damay taxaw di ma jox weccatam xam nga te ndeysaan mënoon na ni mënoon na ni ah jarbaat ma a damay taxara rek mais heure bu ñëwee day tegoog man loxo loolu yombul xam nga maa ngi lay sant bu baax di la gërëm dina la nag làmb maa la si woo bu baax a baax a baax di si woo safaru bis yëpp xam nga mafia gi jaa maa ngi koy woo Abdou café gi maa ngi koy woo xam waa Thiès sama kër maam Boubacar Diallo jël naa nuyoo bi yëpp teg ko ci loxoom ni ko mu defal ma ñaan bu baax a baax a baax a baax sama maam ñoom Tima xam nga ñoom Ndeye Sira ñoom Kumba Diallo ñëpp maa leen woo si làmb ji deedee ñoom ñëpp Adama Diallo sama tons Boz Boz nag neexa su ma daanee surprise bi ma nga may jox doomu yaay Keba Seck maa ngi toog nag di la déglu tons bu bi dem nga ko waxoon nag mu ngi noonu maa ngi nuy waa Fodja waa Fodja maa ngi leen nuyu bu baax xam nga Fadia maa ko foofu ay supporter Fadia sama mafia Fadia bi ñëpp maa leen nuyu di nuyu Papa Couture taalibi sëñ Saliou bi xam nga ay mbay ay mbay ñëpp maa ngi leen di woo si làmb ji baax a baax a baax a baax xam maa ngi leen di woo si làmb ji xam nga Père Bamba Père Bamba làmb ji gisaguma la gisaguma la ba ba tey nag waaw maa lay maa ngi lay tàllal loxo nag di la di la déglu xam nga pour nga jàpp si kaar yi ak tiset yi ndax ñun instant bi dafa xaw a métti si ñun xam nga tan Adama Diallo tamit Séeri Bamba maa nga koy woo si làmb ji baax a baax a baax a baax jaay sa mbaam sama ndaamali tungu nekk sëñ bàmba gi maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax kooku day sonn si man ibu taalibe kara xam nga sama taalibe yëpp képp taalibe bu yor pot naan sarax ngi laara rek maa ngi lay sant di la gërëm Bamba séeré boroom borom Italie boobu tey nag yàgg na de. léegi loo yóbbante far Bamba loolu yàgg na nag maa ngi toog di la déglu ba ba tey damay wax nag de gaan libéré ma sant yi dafa cete far bu jar idi nee lu ma la yóbbante lu ma la yóbbante lu tuut te bëriwul la mu ngi di la ñaanal wér tan wér ak wérle léwit soreetul jour si moyen rek incha allahu rabbi lenn dong laa lay ñaan nga taxaw dëggal sa bopp boo taxawee dëggal sa bopp làmb ji du mat une minute. bu taxawee dëggal boppam. bu jar boo taxawee dëggal sa bopp làmb ji du mat une bu neexee yàlla sunu bopp. vaar am na de. vaar am na mais du ma dem vaar. parce que du parce que li tax du ma dem vaar. Ah. mu maanaam li làmb laaj dama koy def entraînement bu doy xel mu dal fit bu doy. mën a bëre gu doy am doole gu doy kon man neew ma neew ma nag vaar amul ndax yàlla suñu borom yàlla suñu borom moo bind doomu aadama yëpp sport làmb lan wax victoire moom defet ma si niil te bu neexee yàlla si kàttanu yàlla ak suñu borom du ma dem vaar far bu jot dinaa ko duma dinaa ko daan su neexee yàlla suñu borom. boobu moo nekk sa septième combat su ma waaw mooy sama septième combat mooy sama septième victoire bu neexee yàlla suñu borom. Boy Diop 2 ñu ngi lay bëggewaat bu baax baax rek di la ziyaaraat di la joxaat sa wàccuwaay bu wér a wér. Fallou Ndiaye moo fa woote woon muy journée le huit fële sa arène nationale Thiatou Yoff Bulldozer di bëggee ñëpp di bëggee mbayaar yëpp nag bàyyi ma kenn fépp fu mbayaar nekk rek apprenti super tabarkat sareet ñëpp maa leen di bëggee bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàcce waay bu dina caméraman bi dem ko tu mayga bi bëggee naa la bu baax a baax ziar jox sa wàcce waay xalil